chers amis ah donc euh, internautes ñu ngi ak euh, ki nga xam ne moom moo di ah, donc euh, Abdou Aziz Sy Ndiaye Abdou Aziz ah da nga ñëwoon parce que man démb dégg naa ne le maire de Bargny ah, le candidat de Benno Bokk Yaakaar bi nga àndal ñëw na ba def dépôt lu bëggoon xam lan moo sabab tey jii nii sa dellusiwaat fii ak ndax pare ngeen. dellusiwaat bi rek mooy dama ñëwoon doon xool climat bi lu fay xew il faut ñu xool si suñu potentiel adversaire si lan lañ ne. donc parce que dañ leen xawoon mais ñëw nañ ñu. day na nappa day na nappaate léegi. <laughs> <laughs> waaw donc nag dañ dañ fi jaaroon rek mais vraiment gis nañ ne situation bi. Euh, wax fa dëgg yàlla mbir yi mu ngi dox ni mu war a doxee daal. Mhm. effectivement déposé na ñu démb. Mhm. à a h le maire le maire même euh, Kanda euh, Kanda Benno Bokk Yaakaar et mandataire. Mhm. moom moo ko déposé demb à 18 donc jàpp nañu ne ñun tey moom defuñu fi dara daal. donc li ñu waroon def def nañ ci démb. jotu leen am benn problème ci liste yeeg yëpp yëpp si aajowoo. non xam nga Moussa bu fekkee ne yow tàmm nga dem élection. depuis 2016 bu léegi ñun ñu ngi si donc jàpp nañ ne defar liste ñu mën a sono mhm. te am nañu potentiel boo xamante ne am nañ ko xam nga kii xam ne mooy sonn si defar liste mooy ki xam ne amul ku mu investir. Mhm. mais ñun dañu amoon embarras du sax pour mën a investir. Mhm. donc amuñu jafe-jafe. pour defar suñu liste. alors beneen bi euh, mooy lan ngay wax euh, tey électeur ak euh, mbooleem koo xam ne mandataire la par rapport ak li nga xam ne moom moo di presque terminé processus bi. bon li may wax rek mooy wax fa dëgg yàlla ku ci nekk na ànd ak dara rek. xam na ne li ñuy xëccëkoo ñun ñëpp ñoo ko bokk mm. te muy bari mm. après le 23 dafay am day am beneen dund mm. donc tey lépp lu ñuy def na doon loo xamante ne wax fa dëgg yàlla lu rafet la te lu neex a dégg mm-hmm. parce que Bargny nag dafa am benn particularité mooy ñun ñëpp ay mbokk lañ mm-hmm. koo laal laal nga sa mbokk mm-hmm. donc tey mën nañu xëcc ko si jàmm ak salaam mais ak si yer ak teggin yàlla nag mooy tànn te tànn na bu pare xëy na peut-être fësal moo si moo si des dañuy ñaan suñu borom nak mu fessel suñu candidat ndax mu mëna a am deuxième mandat. alors gañ candidat yi bari na de euh, jamono bi bari ñi euh, titre leen. Moussa yow tu es un politique da xama né candidat bu bëré rek. Ah, Abdou Aziz yaa accusé quoi man je suis pas politicien voilà man peut être je suis un observateur. suma waxé né ah. non suma waxé né ne tu es un politique. soko waxé non gaay dañ may duggal fenn dé voilà <laughs> donc Moussa tu es un observateur. voilà c'est ça. voilà donc ce qui veut dire que né tay candidat yi bu man dama la avantage parce que le maire a fait sept ans à Paris. sept ans sept ans il était en contact permanent avec les populations de Paris. donc tay am une relation yu mu ah ñu ci population donc jàpp naa ne tey huit candidats comme comme comme comme comme Boun Abdallah li mu waxoon bu ñu amee huit candidats on passe vite et bien fait. rapidement incha allah euh, dinañ am deuxième mandat. yéen ak Ousseynou baa Ousseynou Ba ñoo xamoon que si parti socialiste tey bu bu déposé ndoo ak yéen hasard la. bon xam nga aussi parce que je dégg naa ne démb depuis démb la déposé. xam nga aussi tam tey démb la déposé waaye ñoo ko njëkk déposé ñun dañ déposé pare mu toog ñu xaar bi ñu paree ñu kii noonu lay demee rek ñuy ñu élection mais nag moom am na droit parce que c'est un bargnois comme tout le monde am na droit ne dafa bëgg a soxla dëkk bi am na ci droit ñëpp ñi xamante ne ay candidats lañu aussi tam ci Bargny am nañu droit ne dañuy poser candidature pour mën a aspirer doon maire Bargny donc loolu ku si nekk am na droit mhm. waaye na ku si nekk aussi tam di nga xam nga sa limite yow. mais aussi xam nga sa avantage morom. Mhm. donc te loolu moo si am solo. voilà ñu lay gërëm di la sant ci euh, intervention bi euh, di wax ne Abdou Aziz euh, Sy Ndiaye la woon par rapport ak li nga xam ne moom moo di le dépôt des listes mu jaaroon doon xool situation bi gannaaw ba ñu déposé Mame Gor Diazaka ñu ngi lay nuyu a moom bu paree également dina ñëw jaar ci kanamu suñu ay caméra ñu lay jaajëfal. merci Moussa jërëjëf merci beaucoup merci.